Japon fii du Sénégal avec représentant euh, résident au JICA euh, toogal JICA euh, assisté à nous, signature signature lettre d'échange du ministère de l'économie du plan de la coopération du Sénégal avec excellence ambassadeur Japon M. Tasso avec aussi euh, représentant wu JICA fii ci Sénégal bi nga xam ne convention, laa signé convention convention de don don donc mooy appui boo xam c'est non remboursable kenn du ko remboursé euh, Japon jox nu ko te mu toll ci ñaari milliards ak ñeent fukki ak ak ñeenti millions donc 4 milliards pardon 2 milliards 400 millions euh, loolu nag centre de formation professionnelle ak technique au Japon Sénégal de bu nekk ci Dakar mom le ko Japon diaglel pour ñu mun a métier yi nga xamné euh ñu koy former diko jangal jàngal suñu ay ndaw centre de formation bi nag ñëpp xam na réputation bi am centre bi am na succès trop comme niko sama collègue monsieur ministre Dame Diop

passé itam passé mu baax na avenir am tam baax donc don bi nga xamné Japon moom ko may dina gëna tax euh centre bi mëna diversifier offre de formation mu recevoir ay yeneen ndaw ci lépp li nga xamné moy lu ñuy naan chaudonnerie industrielle euh chaudonnerie industrielle nag difficile traduire ko ci wala xaw nak nag moy moy ci dimbali mooy mooy affaire soudage soudage quoi def ay soudage mais soudage industriel voilà donc loolu la ak lépp li nga xam ne moo jëm ci formation métier affaire froid mooy congeler ay ay congélation xam na affaire froid donc loolu daal mooy métier nga xam ne ko ci dolli donc ndaw bu bu bëgg a liggéey liggéey yooyu xam ne léegi mën nga dem ci centre de formation euh, professionnelle ak technique bu Sénégal Japon donc euh, euh, comme ni ko monsieur le ministre waxee aussi daam c'est que l'idée de ci ci anam yu gën a gaaw bi projet bi 2018 la donc ñu 2019 financement bi ci acquis donc nous ngi féliciter félicité équipe bu ministère euh, bien nga xam ne Dame Diop Moko ko jiite le ministère bu toppatoo affaire emploi euh, formation professionnelle et artisanat ak waa ambassade du Japon waa JICA aussi waa ministère de l'économie du plan coopération donc di collaborateur yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñoom ci liggéey di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf